mbera sama njabot mbera yéen punya ñu connecté ku kusaanu mbera sama njaboot di naan jigen jigéen Korai, sembay di mureji mam sama dom ji sama njabot bi sama doom ma ajuma génn na nuyoo dekk comme li ngeen ko waxee rek wax ñàkk wax he is the chosen one moom su génnul étoile Sénégal biddéew kenn ko gis su génnee biddéew ñu gis ko moom mooy def sénégalais moom mooy Sénégal te tamit lu ma gën a neex ci wax bi ci groupe màccdo yi assassin yi terroriste groupe bi rebelle camouflé yi reykat nit ñi ñi nga xam ne dañoo mbubboo Sénégal ñi doon ay ennemi Sénégal doon ay assassin utiliser ñoom utiliser quelque groupes ak ñoom am ay jigéen ñu utiliser am ay xale am ci ñoom ay mag ñu utiliser lu ma neex seen wax bi pourtant dañuy waxal seen bopp tontu seen bopp te yéen xale yi sa waru leen tontu bi ko danaa leen man wax bu amee ginnaaw wax bi laa jàngat mais du lu génn parce que ginnaaw wax bi gé am na ba pare léegi nag fañ ko war a jaarle mu génn lu génn seen làmmiñ jom ñooy ñooy ñi nga xamante ne dañ leen use pour ñiy wax lu salte lu ñaalu ñoom tamit ay bouc émissaire lañu ku leen wax loo même ay yomp Mathieu Dobi sa bouc émissaire la ñom ñep ay bouc émissaire la wa appel yep ay bouc émissaire ay ay Mathieu Do ñuy use la ñun en tant que doomu takande ñun ginaaw wax lañu comme lu mu leen wax livre bi ngeen ni lire ñun dañoo lire ko ko bindé ba paré moo dara jaax dara duñu bett dinaan sama jabot Mathieu Do yele li ñuy wax amu dara lu ci ñaan dañuy wax ba défar pour lu jëm ci yeen because sama doom ajuma génn na ni yow pour wane biddéew Sénégal mu ngi fi ba léegi Sénégal du lëndëm biddew de bright net star power ba tey mu ngi fi étoile Sénégal mu ngi Sénégal saa yu nekkee génnal dégg wan leen étoile Sénégal mu ngi fi kenn mënu ko fay day génn wan leen ko pare mu delluwaat dugg yi si liggéey ba tey mi ngi def the work of the voice the work of the Senegalese spirit c'est normal so therefore ñeneen li ñu wax yëpp boo ci jàngatee li ñu wax pourtant waxuñu lu ñaaw because suñu newoon ajuma <clears throat> dafa def comme màcc do ayomp lu mu def comme moom day éviter ci maamoom yi ak tamit simb bi borom beeco yu bari yi comme lu muy def moom tamit ñu éviter seen maam yi ñoom xajuñu Sénégal te pourtant ñun dañu ne empire de kaabu ñun ay buur lañu colonisation moo ñëw jox leen li nga xam ne nit moo ko créé mais buur buur du daw donc ñoom ñi nga xamante ne dañu bëgg a implante indi li nga xamante ne histoire musu ko sanc jaam bu bëgg doon buur te diam bu bëgg doon bour esprit sa mus ko placer donc koku mom ci xex lay nek pour tok waye du musal parce que gis nga saison bour deug ku ko moomul doo ci tok bo hérité wu do ci tok donc ñom ñi nga xamante ne mus hérité ñom bu dara amé duñu ñu daw Gambie du ñu daw Guinée du dañu doow Mali mi nga xam ne ay dëkkandoo dañu doow Côte d'Ivoire sax dañ ko xeeb daan nañ fa uti sax ñu xeeb ko ñoom dem ñu fa seen ancêtre say nekk comme sax ñu fortify leen pour ñu war leen carrément lii la am mun leen doon ñoom doow ñu foofu yëpp ñoom dañu daw fekki seen maître esclave bi di gën a ñàkk doole di gën a ñàkk lumière di gën a lëndëm di gën a dëpp waaye suñu ne woon ne sama doom ji ajooma dafa génn mu daw dem France walla ñëw Amérique walla dem Italie at least mu doon gàcce waaye ñoom seen waxu yépp moo tax dañuy wax bay defar dañuy wax ba dooleel which mean is great ndegam ñoom xam ñu fa ñuy point ni ajuma dugg na Gambie dugg na Guinée it is good spiritually ci énergie positive fortify foofu yëpp ay ancestors ñoo fa nekk ñooñu dañ ko fekk si soo ñooñu ngeen di lim ne bi ngeen limee bi lim Guinée juumoo leen de da ngeen woote lu am ba pare te gisoo leen ko soo dangeen ngeen ni àggali wax in a positive way yéen ci yéen ngeen jël ko lu ñaaw la parce que da ngeen ñaaw ba pare sax te c'est normal da ngeen wax ba defar nee naa leen ci guerre lañu nekk te bi ñu nee MPDK bi MPDCAR bu dafa couvrir depuis Guinée Bissau mu dugg ba Gambie all the way Sénégal actuellement MPDCAR moo jóg taxaw MPDCAR bu moo jóg taxaw parce que nga tax bu mu participer mu jóg taxaw because saaga bi ngeen indi yéen ngeen mérité ko seen bopp munoo leen ko implant fi nga xamante ne fa mu gënoon a jekkee sax lañu ñu jekkowul massama léegi bu jekku amatul soo lépp loo leen wax de tudd ci dëkk yooyu de maanaam da ngeen xam xam ngeen xel ne empire du Kaabu dafa taxaw parce que yéen a woote guerre guerre bu nga xamante ne yéen xamoo leen sa li ngeen woote. donc loolu ngeen ni lim dafa nekk sur place ba pare spiritually physically di leen xaar ajuma mu bougé mu ñàkk bougé lépp nga ko wër. invisible visible yi lépp a ngi taxaw wóor ko soo loolu wax lu ne it's not a fabricated lie c'est que da ngeen ko génnee ci beneen sens mais lu am la dañ ko fekk si ay esprit moom ñëpp a ñëw taxaw en sa somme ñëpp a ñëw taxaw ba mu nee naa leen ba mu jaaree ci pongam bi jaar ci ndox boobu ñëpp a ñëw wuy si ko yaram ñu déplacé donc soo leen woon dafa déplacé dugg France kii ngeen teg ñu gàcce ngeen weddi jamaat jambaté bu nekkon ci maamam ñu nan ko arafaan besi sonko ba ñew ci mom ci bopom da ngeen kay wéddi jamar kenn du ko jox xass bañ nañ ko bu ñuy tuddu suñu doomi dañuy xol ban tur la leen jox bu tur bu leen dul um bu leen yëkkati donc xasso leen da ngeen def exactement li ñu am spiritually li nga xamanteni ne gisoo leen ko mais wax ngeen ko seen tal seen lami mu nekk lu nice di naan at démb Sénégal noy na en a positive energy ba Sénégal génne walla leen étoile baa ngi fi nooyi leen tuuti ñu continuer guerre bi lépp lu rafet ci Sénégal utilise ko kon arme deret bloodshed bi nga demee ba jël ambulance danga xeex a xeex a xeex a la Benno Bokk Yaakaar ku ko moom lu positif moo tax mu créé ko de yéen a ngi dox ak espion parce que kooku bëggul lu salte lépp loo leen laal day yàqu loo leen jublu mu rafet rek moom loolu la bëgg jàmm gi développé Sénégal ak yëkkati jeunesse bi ñu yor réew mi Macky Sall yow ak Marème Faye Sall da ngeen a xeexexe ba dem utiliser léegi ambulance fekki desporé jaaxle ñàkk xalaat ñàkk matuwaay ñàkk développé enrhumé bi nga doon dem nga bay utiliser léegi ambulance mu nekk sa own arme of guerre tax ba ambulance léegi mu nekk red flag bu ñu président bi ñuy naan da ñëw pour développer réew nga ñëw nga génnee réew. fumu develop, dafa développé ba ag fenn fa nga xamante alis liste ñu neen en am nañu li lool yépp nga jël yaq nga dem ba jël lu ci ton sa boole ko ci ba jël am la def ko red flag li nga yaq Sénégal dafa bari yow ku lay top ci bopom sa suma gisé ay xalé jigen ñi nga xamantene xalé yi di xex dañuy wax wax ñi ne ñom sen yaay yi dañoo sonn ci ñoom te bëgguñu ñoom tamit ñiy sonn pour seen doom parce que ñoom gis nañ seen yaay li ñuy daj pour def di leen di sustain te ñoom fu ñu tolloo pour noppal seen waajur yi ñoom ñoom seen waajur ñi ngi continuer ba léegi di participer di jox seen jabar yi ñi lekk di leen ngénteel seen doom yi di dundal seen doom yi di leen di jëndal ñoom seen bopp silib bu ñu war a sol ñu summeeku dem sax di kattante ak seen jabar yi seen yaay ñu lañ koy jëndal ba léegi la ci ñoom ñoom fu ñu jekkee pour noppal seen waajur yi Tay, sen wajur war ñu dem tek ay plat di jaay ba legi di utum dépense pour jox sen domi, sen jaba domi yi lu ñu war togg da ngay gis jigen bu tok dem marché té la xey goro té la xey tek table di jaay té goro gi dinañu pundug bu ñëwee ci table bi lay jaar mu jël fa ndug lu goro gi am mu jël ba pare man li nga xam ne ko goro gi génne ñett téeméer ñen ko am dama motul ndug pour dekk di jappalé seeni goro seen jabar domi xalé yi dañuy tok di ko wax ñu ne soo gisee ñuy xeex parce que ñoom li seen yaay di daj léegi ñoom bëgguñu tam ñu toll foofu tam di ko defal seen doom yi dañu bëgg ñoom tamit seen yaay nañu moo tax ñuy xeex xeex bi ba pare ñoom dañu bëgg noppalu ëllëg seen doom yi nekk freedom moomal seen bopp lu ñu moom ñu leen di jox ñoom tamit so bu ma gisee ay xale yi nga dañoo jur ñoom feesal seen i kër feesal seen kër ay xale yi ay jeunes lañu ay xale jigéen feesal seen kër yor ay doom yi sew sew sew sew sewaan ñii topp ay yumpo ñi topp macc do bi xalaatuñu sax seen nii doom yi xalaat bi ñu xeex bii ñoom bu ñu xalaatee lu ñu sonn xooluñu sa seen doom yi loolu tax ñuy xeex pour ñoom ñu mën a libéré wu tamit ñoom ñoom seen bopp ñu mën a libéré parce doom yi bu ñu sonn ñooñu ñuy xool solum tiset ak solum casquette war bi sër yóbbu leen ñi mumbaay toggal leen sandwich jox leen ay priorité ñi lekk wala dugal leen ci oto ñiy rattraite ma ni ay xaru jaay ñiy dem ñoom loolu dëkk lañu tam toog ñu sa calculer analyse lan moo tax xale yi di xeex lan moo tax ayompo nit ñi ne ko dafa war a démissionné dem yoonam xooluñu ko sax su ma xoolee ñooñu damay xam ne que ñii ku amul avenir mooy topp màcc do parce que jigéen il faut nga am avenir sa bopp jigéen bu am avenir rek day bugg ay doomam am avenir jigéen bu ambitieux day ambitieux bugg ay doomam ambitieux parce que képp ku topp Macky Sall amoo ambition amoo avenir parce que ñun ñoo jur soo am sa avenir moo tax nga bëgg sa doom ji am avenir boo si yow sa avenir yow yow at xeex nga nga bañ nooteel ki taxaw nga góor nga bañ ku la boole ci bi ñuy xas nit ñi sa doom gis ko jël sa sa identité mu naan moom tam day xeex du bokk ci ñi ñuy xas mu naan dina xeex tam defa ba doomam yi duñu bokk ci ñu ñuy xas tey ñooñu ñoo nekk di jàmmaloo ak dëkk bi xoolal lu mel noonu de ay jigéen ay xale jigéen ay xale yu góor di dem parce que dañ leen jox benn cent mille wala cinquante mille deux cent mille pour benn fan xalaatuñu sax seen avenir doom ëllëg na muy mel xalaatuñu ko sax soo Macky Sall bu demee tey ba ñàkk gànnaay. wóolatul sama moom boppam amatul pexe amatul strength fenn jàppalewuñu ko Macky Sall il est seul moom ma jabar ci simba gi kese lu gën a garaaw naa leen ko jigéen mooy fekk góor fu mu déposé mu jàppale ko dëppi ko man damay dippi góor damay dooleel góor jigéen jamaat loolu mooy point fort tey Macky Sall tey Marème Faye Sall mais silm bi si nekkoon jigéen dëgg tey dëpp bu Macky Sall dëpp mënoon na am sax dina génnee xaaf lu bari sax mais moom tam dafa biisi ci benn côté woon fan ngay gisee ñun ci histoire première fois Gambie seen premier Gambie yëpp ay Gambien lañu woon kenn moo ci nekkutoon Gambien mooy Zeyna Suma Jembe mais depuis ci Jawara ba ci président Jammeh tuuti faal ba ci aadama Barrow ñëpp ay Gambien lañu ñi représenté jigéen Gambie gi Gambie moo war a tiitool ci kaw Sénégal ndaxte Gambie dafa wóolu seen bopp fa ñu commencé ba fu ñu toll nii seeni jigéen yi lañuy ànd àndal di doxal seen dëkk ak lu mu métti métti métti ñi leen di dooleel ñun Sénégal ñaar ya ñëwoon ñëpp duñu ay sénégalais ñett ñi am quatrième bi mu doon sénégalais puis lu mu ñu indil ay porn star premier dame di dem di maccante ay data ba jàmbur yor ay video ñew di ko wonne di nan senegal la amé premier dame li nga xamantene bo len togué di nan senegal ñun li du suñu xam nga li ngeen ni wax ça veut dire amna ba pare li ngeen def man ma dégg fi may nan li suñu aada li du suñu yef Sénégal dekk julit la dekk catholique la yoyu ku kay wax ku ne c'est des langages of division ba paré langage yoyu da ngeen def ba paré ku def ba paré moy wax naan li de du suñu du suñu du li def nek ñu koy def ñi ngi rajaxé Marème Faisal Alice moom ak doom ji bala ñi daw jaar par Guinée jël fa sen avion billet d'avion ah, avion numéro avion bu leen jé rawale France bala ñi dem fu sori pourtant Marème Faye Sall mën nga jël Amadou Sall nga jaar nii dem ci naar du Dubaay wala nga dem ah, nu sa Qatar dama ci naari dëkk naar yi fi nga yàgg dem parce que naar yi dafa nga leen li nga xamante ne ñoom ba keroog sax ñoom héritage nga leen tegal parce que jigéen buy dem di kattante ak doomu naar yi am 14 ans 13 ans yu góor pour dëgëral seen nàkk kooy pour dëgëral seen sidd kooy parce naar yi loolu tax ñuy utiliser loolu tax Farba ba di def liggéeyam Amir Khalifa ñeneen ñeneen ñi Aïda Diallo sa bokk na ci ñoom ñépp soo gisee ñiy dem di bu broqloo ci naar ya business bi ñu fee doxal mooy naar bu doomam juddoo am 12 ans 13 ans soxla na jigéen bu marron bu war a kattante ak doomam pour dëgëral sidit kooyam nakkom pour seen doom parce que naar kooyam dëgërul naar nakkom dëgërul amul strength soo loolu boo koy def ay cartable maret lañ lay jox donc Marième Faye Sall da nga liggéeyal naar yi li nga xamante ne duñ la fàtte am na fa ay xarit seen groupe boobu yow bay daw féetale ci naar yi à liste dañuy ne yow danga nga dow ci ñi leen coloniser ci ñi ngay toppandoor parce que da ngay dem foofu seen dëkk dem di mbëkk seen kii bu xeer bu ñuul boobu dem di def yëpp dem nag di kattante ak seen doom yi pour dëgëral seen naq koy ndax ñoom ñu mën a hérité ñu mën a leen jural ay doom continuer la naareuse li nga fa sotti moo gën a fort que li nga nekk première dame senegal Sénégal parce que première dame bu Sénégal da nga saaga bépp jigéen amoo fa héritage bu baax ñu dara dame bu Sénégal dañ ñun dafa dañu rus pour ñu dippi ko pour parce que dafa salté yow mais ñu respect xooloo sa sa le premier dame yi nekk Gambie depuis ci ñoom le di ngéeme ba ci ñoom Fatoumata Baro ak ñoom ak nous ñu tudd sa euh, wujj mo xol ci ñom yow nga dem bëgg xaaliss tiit bëgg mumbai nga dem ba ñom ñi lay filmé ba denkané say film ci ay jambour jambour yu bëgg Sénégal trop ñi dem jox Sénégal pour ñu téye lénen ni ñun tay fu ñu taxaw tay sénégalais sénégalais ha ah, fo leen taxaw tay jigéen ñi tak sa musso di wëndum wëndangi di tiitoon ba nga taxaw ñu laaj la from where nga ne Sénégal ngay tudd sa première dame nit ñi am na lu leen xool te xamoo leen xool bi leen xoolee parce que da ngeen a stupide parce que Marème Faye Sall lay circulé ci moom ci datoom googu màccante gi ak kattante gi ma kattante fële porte à porte bi fële bi ngir ëttum alal ñëw di wënda wënda ngeen sulu ba amul tubéy gàcce la ci bépp sénégalais moo tax naar yab leen yéen mu fay dem équipe ñoom Aïda Diallo googu noonu moo tax naar yab ay jigéen dañuy indi xaalis ku nekk di farax faraxlu ne fii ne fii ne faa ana seen compagnie ana seen usine am malet yi fan lay jógee jéemoo leen étudier Farba Ngom teg na ay malet jéem leen étudier xool amee Khalifa Niass dafa rësal moom bokkatul ci maf bi moo tax mu mer ku nekk dina la jiiñ merom parce que moom bu njëkk ba moo nekkoon da master da biggest pen ni encaissé lu bari léegi di rien que ñu xale ñu yóbbu ni xeesaleen ba mu yeeg yóbbu leen léegi moom bokkatul am na ñu jël relevé bi soo at least

nga jaay sa bopp ci ñoom nga bénéficier leen ba pare indil ñu gàcce teg ñu gàcce ci la ci première fois ñi am jigéen sénégalais pire ñun lan la ñuy wax suñu nawle gambien yi moo tax sénégalais yi il faut ngeen def très attention pour jéem a dang naam ci gambien yi ndaxte gambien yi dañoo yor li nga xamante ni fu ñu ko teg rek yéen ngeen yenu seen loxo seen premier dame moo fi njëkk indi porn di kattante def porte à porte di màcc ay kooy doomu naar di kattante ay naar yi 14 ans ay 12 ans pour dégré seen site ñi koy jox ay malet xaalis ay 1 milliard ay 2 milliards parce que première dame la fexe leen ba bu len xuloo Gambie man Gambie dam dama kontaan ci Gambie gis nga ñe dekk ñe dekk day touti ta saf Gambie dafa touti am fula saf fayda am dignité ndax les sénégalais foko fek fekk mun day day day jël nit jokatu ko tur ko benn étiquette diw ñii ñii fo fekki xébaati mo njëkk xébu boppam da ngeen a xeeb seen bopp yàq seen uñi sen bop fep ci pare di taxaw di dangaam di Gambien doo gis ne mukk muy nappaat dafa gëm boppam parce que dafay gëm ni que moom nu mel yow non nga mel respecté ni fonku nit fu fekk dañuy bëgg bu ngeen bokk doon ben mais sénégalais moy ñëw taxaw ci met defe ne dafa mus bu ñu taxaw defal ne ku photo nga xéssal ba wéx tak say xef melni ëpp kaay ku manqué air taxaw na rousa nag jël sa filtre defal sa filtre ba ma taxaw di dang naam nga defe ne yaa ci ne te ndeke ab nak taxaw sampal leen bëjënd ñi mbëk miir yi te duñu daaneel dara gis na ñun doomu Casamance dignité bi suñu maam yi teg xeet ko kookoo ñu topp kookoo ñu gunge ba léegi doomu Casamance fu mu dem fu ne te bu bëgg réussir da koy gañe ci kaw bu fàttee boppam bëgg a doon leneen day dëpp boppam nëbb boppam tey fi ngeen nekk na yéen mi topp ay yumpo da dem ba jaaxle xamatoo leen li ngeen def man la dragon verte la couronne la paix nee naa leen maa doon wax ci jàmm waxatuma jàmm actuellement da ngeen ñoo déclarer guerre te guerre gi dinañ ko guerre ci façon yu bari même ci nekk sa Casamance bi ñoo na Ziguinchor fépp ci Casamance képp ki nga xamante ne traite nga ennemi Casamance nga sa ennemi doo ko bàyyi rey taal ci fa ñu toll hôtel yi nga xamante ne day recevoir sa suñu ennemi xale yi xam ko taal leen ko guerre da dangay yàq yépp

ñi defaraat ko yéen a yor doole bi yenn a yor xel gi yenn a yor cotisation yéen a yor sax financement bi développement yéen ko yor te bëri ci pexe am ci tiktak xam ni ngeen koy defee te xaaroo ci kenn kii ñëw naan propagande sax ay affaire de li luñ koy waxati ndawtal jàqalante ak yooyu nekkul si yéen dëkk loolu ku ko éliminer ci dëkk sax hypocrite go propagande googu da avancé parce que ay affaire demlante wala diw may na ma tagg ay yooyu yëpp ah, man maa gën a bañ ko ma tagg yëpp tagg hypocrite yooyu tagg injection of euh, di la rey ci làmmiñ bugguma loolu parce que yéen a yor pexe defa dëkk bi taal leen ko fépp mu flat ñu commencé at à zéro parce que guerre ku la ko ku ne te wax la ni muy ñëwee bul xam lan may génn

ay diryankam kam yamuy def andak ñom di def seen man ko sunu ñom la concerne ñu suñu yoon newu ci Macky Sall ak groupe teugam nga xamantene ñeneen ñi ngi démissioné bëggatuñu mu ngi nonu japp na ay tak der yi bari tek leen ci côté parce que andu duñu mësa a mom ak moom tam balaa ngeen ko xamata ko defal leen benen renfort ngeen déplacer ñu parce que ñun Casamance ci lañ gëna a nekk on stand by nee leen guerre bu jigeen jité mo gëna gën a ko guerre bu goor ñi jité ñu dañu bari façon ñi xexé dañu tollu suñu dëkk négocier ñun politique ñu 40 ans de souffrance ci Casamance du 4 ans du 4 mois du 4 semaines 40 ans ah lu ñu muñ a muñ a muñ a muñ di dox ngir jàmm gi amul loo leen deful ay doomu Casamance yeneen neera rey dem ba finalement ngeen décentraliser li di rey Sénégal doomu Sénégal yëpp koo leen fekk jàpp ko wala rey toj seen i place yi seen i tëgg yooyu seen terroriste yooyu nekk ci plateau télé di naan nañu rey diw nañu lakk diw diw def na li ay génnee ay mo yi nga xamantene yoy ngeen ni togn xalé ni nañoo wax li ñemew leen leen sax dem téye ñeñ ñoo di jël sama jabar bi bu ñu waxee un ngeen waye nak sonal lo leen because ñom fu ñu nekk dajale noonu da ngeen nek dajale ay dool yi nga xamantene ne bu ñu nee bëss ñom la ñuy plan bés bu bébé ko di ngeen xam seen yoon ñëw ci lan ngeen mënal askan bi lu tegg leen gatché loolu leen aduna gi yépp di xol di wax ci Sénégal tay amul benn dëkk bu leen nawloo ci seen leadership gàtt xamoo leen ko da ngeen indi li nga xamante ne dafa doy waar ci Sénégal utiliser ay liir di leen di reylu pour seen on selfish interest utiliser ay jigéen di leen di reylu pour seen own interest jël business jigéen yàqu ko pour seen own interest ba pare ngeen defe ne première dame bi fa nekk am na xel. kooku lu mu njëkk yàq parce que il faut nga nga nekk jigéen bi nga xam da nga njëkk protéger sa bopp bañ nga salte nga mën a lu ñaaw nga non sa fa nga def ko def fi vidéo première dame Michelle Obama bu ko Oprah ne lu ko gën a frappé ñoom bu ñu duggee ci White House dafa tey mi ngi fier tey taxaw na ci kër gi nga xamante ne ay ancêtres ñoo ko tabax tey fee fee ñu leen lu ko jaar ba mu naan dina bill history te def na ko ñetteel bi mu ne boppam toog ak famille mu naa leen carrément pour la première fois brown bu marron cent pour cent jiite dëkk bi ñaar doomu jigéen la am de ak moom yaayam moo fa doon nekk ak moom mu am yëpp mu naan amuñu droit erreur parce que seen ancêtre dignité ak ngor moo tax ñu accepter douleur bi pour ñu mun a accepter pour telle histoire te amul ben bu mu ci def erreur dafa assuré dafa yokk dafa defar dafa représenter. bépp jigéen ci àdduna ku gis Tu es moom da nga jar mu wax nga de positive énergie lu muy tu nga fier yo Marème Faye tu es da nga njool nem dame Michelle Obama bi ben la nga jekk ci muus muusoo amoo dara lu ñuy nga defar yow nga ñëw ngi gën ñoo dugal dañ suux jox ñu histoire bu salté dugal ñi fu ñu xamutoon indi ñu loo xamante ne sóoraale wuñu ko dara nga salté Sénégal Sénégal nekk benn sët bu ngande bu bënn ci tuun bi nga xamante foo taxaw ñëpp seen la yàq Sénégal koo koo koo ci gis mi ngi mer ba say militants yi sa dañuy mer di funki sa jëkkër day mer rek yow da ngay mer kenn lépp lu la ànd lu lu topp sax pression moo nekk seen bopp bi ñuy wax sax bi ñuy wax ak seen ngir sërg salte ngir sërg fëkk sërg bënn bu xamante ni foo toll jaroo sa li ngay jël longueur jigéen biy toog day képp tànk yow musoo toog képp say tànk gi sa cottogu làng bu pare dafa dem ba ba fu mu ne dafa soccet fuñ la fekk yaa ngi ŋàppee te ni ngay ŋàppee ko noonu nga ŋàppee secret Sénégal joxe ko fépp

moo gën dem bu ñaaw président Jammeh ba muy génn gaam bi sa jëkkër ayump dafa taxaw ni ne carrément na bi am jàmm gor ca wax ja jamaar kenn du ko fenal kenn du ko sosal kenn du ko laal président Jammeh benn baat la wax sa jëkkër nee na ko nii na fexe moom tamit na génnam rafet ne moom daf ko daf ko pasin daf ko pasin ci biir bu dee xamoo ne pasin dama laajte li pasin dakaa pasin bakko ci biir nee na ko defal tuutam bu yow sa génn na rafet ne bosoom sim Gambia dëkk boobu non lu salte du fa toog lu salte du fa toog dañoo am fu la am fayda fexeel nag yow ak sa jëkkër ngeen génn génn rafet comme nu ko aje nu ko président Jammeh waxee rek na seen génn rafet moom danañ ko taxawal toojal ko nag teew ko ay fanfar gunge ko nag ci jàmm atmosphère bi ak énergie positive Gambia gunge ko nag moo tax jàmm rek la am fu mu nekk noonu yéen yéen a ci biir amoo leen jàmm yéen ngi daanu crise di pigi yow yaa ngi ni ba ñu tuddee say kase ba léegi da nga dof bopp bi monté na yaa ko def toogal xaar anytime man moom rek lay xaar toogal xaar anytime parce que lu ma jot a gis moom dafa doy waar just wait for it wait for it looloo tax nag nga am courage dem jëli doomu jàmm teg ko mu nekk sa porn star indi say 16 nañuy katt kattee rek par jël doomu jàmm teg ko ci côté di ko naan defal defalal man ni parce que da nga xam li nga def xam nga carrément loolu lu mu saltee nan nga ko mën a doxalee parce que da ko jéem ba pare sa bopp moo tax nga mën ko def ci benn doomu jàmbur ah oui dinaan beeraa sama njaboot bi.